salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu man la Idrissa Gueye président COSAPO. COSAPO moom kuréel la boo xam ni dañu jóg ngir lépp lu jëm ci wàllu aj màkk ndax ñi ko sos ak ñi ci ne ay acteurs lañu ci wàllu aj kon su ma bëggee tënk rek dama naan kuréel la boo xam ne daal ci wàllu aj màkk si la ñuy yëngu. alhamdulilahi rabil alamin mobilisation bi tey xam nga le 3 mars lancé woon nañu. ca Ndakaaru Ndiaye ci teewaayu ministre de la santé koroog mu yebal fa madame Ndaw mu représenté ko docteur Ndaw ak délégué général ñu lancé woon ni nag COSAPO fas yéene na jóg bokk ci ñi nga xam ni daanu xeex mbas mi ndax laal na ñëpp waaye daf ñu laal ñun ñuy organiser màkka ndax deux mille vingt demuñu màkka deux mille dix neuf fii ñu taxaw di wax allahu alam yàlla moo xam. ndax dinañu dem am duñu dem te li sabab loolu ba lii am mooy mbas mi kon COSAPO nii war nañu jóg taxaw bokk ci ñi koy xeex li koy xeex nag na ma ko waxe woon rek mooy ñaan saraxe ak tuub ak déglu digle kër docteur digle déglu digle kër docteur yooyu nag moo waraloon tey ñu dikk Thiès ba du jógee dakaar keroog tey ñu ñëw Thiès fas yéenee seeti ay daara yóbbu leen ay ndimbal ngir ñu dolli ñaan ndax addu'a u silaaxul mumin wëlbati ko itam soññu leen fàttali leen waxtaan ak ñoom ci li fi ne nan la ñuy def ba mën cee mucc bu buñ fa jógee itam dem ay juma tey daanu jullee ay juma fa tabaarakallaahu giseeg imaam yi giseeg ña fa ne yóbbu leen ñoom itam ay masque yóbbu fa ay kaamil waxtaan ak ñoom itam pour ñu fàttali nit ñi dem ci gaaru ceer yi incha allahu taala dem ci marché yi Euh, loolu daal moom la ñu fas def nii loolu ñuy dem yëpp nag pour fàttali nit ñi rek te bu lu mel nii mësaan a am mbas balaa xel a dal dañuy trouver vaccin heure bu ñu ko trouver rek xel yi commencé dal fi mu ne yàlla dogal nañ ñu trouver vaccin euh, borom xam-xam yi ndax yàlla dañuy fas alu ahla dikri in kuntum laa taalamun laaj leen ñi xam su ngeen xamul ñu xamal leen sunu borom xam-xamu réew yi nag euh, gëstu nañu ba indil ñu yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo. pour ñu dolli soññu nit ñi euh, dolli dalal xelu nit ñi pour ñu dem vacciné wu ndax moo la ci mën a génn ndax màkk gi jëm jëm incha allahu taala bu demee ba am balaa nit a dem di nga vacciné wu man mii taxaw di wax vacciné wu naa alhamdulilah groupe bii mën naa ne ñëpp vacciné wu nañ ah, ak ñeneen kon ñu xamal nit ñi rek bu benn bi ma mën a wax rek mooy ndem màkka dina am kenn du dem te vacciné wu ko ñu xam ne nag suñu njiitu réew. yitte bi mu def ba ba ba indi li mu fi indi ci wàllu vaccin yi wëlbatiku tàllal di wax di dox ngir sénégalais yëpp jot ci a ah, kon nag ñu nit war nañoo góor góorlu ba bu yegsee si ñun ñu jëfandikoo ko te la sëñ Babacar daan wax kilifa du gàggantikoo ci mbedd waaw déglu ñu nu war a déglu mooy borom xam-xam yi am na lool boo ko bëggee xam déglul ña sa jàng tey boo bëggee laaj ci wàllu gàmmu ah ñëwal laaj fa tabaarakallaahu gàmmukat yi booy laaj ci wàllu médecine demal laaj ñoo ko jàngi woon booy laaj leneen laajil loolu kon daal loolu daal laaj ci doon ubbee incha allahu taala moo waral tey ñu taxaw ni ak ci jàppale nag ministère de la santé mi nga xam ne gunge nañu jàppale nañu wéttali nañu incha allah ci liggéey bi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom la ñu seqal COSAPO ñi ñëw ak ñi ñëwul fa tabaarakallahu tey daal ñoo fi teew fa seen defi liggéey boobu incha allahu taala. kilifa diine yi ñooy sunu kilifa ndax ñi nekk ci COSAPO. ñëpp ay njaboot lañu te ñoon wañ nan ñu yoon al isharatu tak fi li man aqala Cheikh Seydi Aboubacar ma tudd rek Ibnu Alhaaji Mansour xalif général des Tidiane gis ngeen taxawaay matuwaay yi mu jël bi mbas dooree ba tey ku mel na Serigne Mountakha xalif général des Mourides gis ngeen li mu defati itam barki démb yooyu yëpp pour soññee pour wane nit ñi ni nañu dem góorgóorlu ñun nag ak ñoom amul lenn lu ñu yëkkati te du ñoom lañu ñu ñoo ñoonu ñaanal dolli teg ñu ci yoon fàttali ñu bu baax a baax ci li nga xam ne moom la ñu liggéey kon kilifa diine ba ci Thiès gii nga xam ne tey fi lañ koy déparé xalifa bi bay alxaaji Muniru Njëgën di xalifa alaaji Ahmad Njëgën moom itam kadaalika noonu ak mboolem xulafaay ak sunu mag yi nga xam ne nag ñoonu jiitu woon ci màkk ko mel na ñoon alxaaji Doudou Ndiaye Presta ak rahmatullahi alayhi alaaji Moustapha Sall yàlla yàlla yeesal yërmandeem ñoo ñëpp ñu ngi ñëw àndandoog ci liggéey bi nga xam ni tey ñu ngi ànd di ko def incha allahu taala ak ñoon Babacar Diouf Mbaye Singère ci fi nga xam ne fi la ñu déparé tey ci résidence te mu bokkaat ci ñun bokkaat ci ak gi fa tabarakallahu yàlla yàlla dolli jàppale jàppale suñu doom alxaaji maxtaar mi géré kër gi euh, ñaanal leen suñu borom daal yàlla yàlla dolli sutura dolli jàppale leen ndax ko sàppoo moom résidence këram la incha allahu taala mbas mi tolof tolof yi foo ko takk wees na ko tolof tolof yi ñu indil laa tu addu wala tox sax mënuma ko lim mënuma ko takk benn rek bi ma la ci mën a jox mooy teg nañu tolof tolof bi gën a rëy mooy tiyaaba yim ñu xaj 2020 demuñu ca raw du yonent bi 2020 te mbas mi la defuñu tawaaful ifaada moo nu ko yóbbi demuñu arafaat moo nu ko yóbbi demuñu musdalifa moo nu ko yóbbi demuñu munaa moo nu ko yóbbi sànniwuñu jamratul aqaba moo nu ko yóbbi kon tolof tolof yim ñu teg bi ci gën a ndaw mooy euh, xaalis bi chiffre d'affaires yi wàcc boobooy bu ndaw bi waaye bi bi mooy bu ndaw bi nga xam ne moom la ñu jàpp waaye bi ma lay wax mooy bi gën a rëy moom mooy tiyaaba yem ñu xaj kaaba ga ñu daan xool bu ñu ñibbisee ku xool suñu kanam yàlla jéggal la ndax téeméeri yi ak ñaar fukk kay wàcc ci kaaba ki par bés loolu fay wàcc nag ñiy tawaaf ñiy la ñiy xool ñoo ko moom 2020 amuñu ko te deux mille mille 2010 2021 bi yàllaa xam yàlla ko yàlla yombal waaye ñu ngi ci loxo yàlla kon docteur Diaw itam Euh, nekk fii jiite Thiès moom itam njabootam délégation bi ñëw nañ fekk si fi ñu jógee Ndakaaru Ndiaye ni ma ko waxee ministère ministre de la santé jàppale ñu ànd ak ñun wéttali ñu ba ñu dooree ba tey boole ñoog docteur Ndaw fa tabaarakallaaw ak ñi ñu seqal ñëpp kuréel boobu. Mamadou Lamine Badji man conseiller technique si cabinet ministre de la santé et de laction action sociale. kuy xeex mbas am ay acteurs yu nekk si diine yenul la xeex bi da nga ciy sant yàlla trop. waaye balaa may gën a mën a tontu si question bi dama bëgg euh, gërëm association bi COSA euh, COSAPO di leen sant di leen gërëm si ànd bi ñu ànd depuis le trois mars depuis keroog bi ñuy ministre de la santé et de l' sociale Abdoulaye Diouf Sarr jox ñu ay instruction ne nañ leen jàppale nañ leen topp nañ leen tabagal ba fa leen bëgg a yóbbu information bi ñu mën ko fa yóbbu loolu looloo waral tey ma ñëw fekk si région médical bu Thiès. bi madame représenté Binta Gueye représenté docteur bi parce que nekk fi pour jëlal leen donc lépp loo xam ne yéen dañ ko soxla si mbiru technicité lépp loo xam ne dañ ko soxla si xam-xamu médecine ñu mun leen toppatoo ànd ak yéen ba lépp loo soxla si mission bi ñu mun ko defak ak jàmm ak salaam. Je m'appelle Mohamed Mansour Mbaye, euh, vice-président de la COSABU. Euh, je vais commencer par, par rappeler un peu que cette action d'aujourd'hui s'inscrit dans le pla dans le cadre d'un plan d'action global de la COSAPO qu'on avait défini lors de notre journée de lancement du 3 mars euh, dernier à Dakar. Euh, on avait prévu lors de cette journée de lancement dans notre programme, à partir de Dakar, d'effectuer de, également des tournées dans les régions, dont la région de Thiès en premier lieu. Ensuite, nous également dans les région de Diourbel et Touba. Nous irons ensuite dans la région de Kaolack et ensuite la région de Saint-Louis. Et notre président disait d'ailleurs que dans, dans notre programme futur, nous comptons sillonner l'ensemble des 14 régions du Sénégal, Inch'Allah. Donc cette action d'aujourd'hui entre dans ce cadre-là. Et nous avons commencé par Thiès. Et voilà, donc nous sommes euh, en train de démarrer la, la journée de Thiès, la journée de lancement de Thiès, avec deux jours d'action de, au niveau des mosquées, des dara au niveau également des gares routières et des marchés. En gros, c'est ça le programme de nos deux jours de, de, du programme de Thiès qui commence à partir de ce matin. COSAPO est constitué par les acteurs du pèlerinage. Contrairement aux autres associations de, de pèlerinage, COSAPO a élargi sa base à, au niveau de tous les acteurs du pèlerinage. Qui dit acteur du pèlerinage dit d'abord le, le, voyagiste privé qui convoie les pèlerins, mais également le pèlerin lui-même. Sans pèlerin, personne ne, ne, ne penserait aller au pèlerinage parmi nous. Ensuite, les autres acteurs auxiliaires. Les, les, restaurateurs qui vont au pèlerinage avec nous, les tailleurs qui, qui nous coudent nos, nos, nos armales et consorts là quand on va à la Mecque, et tous les acteurs qui tournent autour, qui gravitent autour du pèlerinage. Donc tous ces acteurs-là sont aujourd'hui membres de la qu'au SAPO. Donc c'est fondamental. comme le président l'a dit tout à l'heure, il est clair que le, le, la Covid, dès qu'il est arrivé en 2019, a fondamentalement euh, sur l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Nous n'avons pas été à la Mecque en 2020. Depuis 2019, donc, nous ne sommes pas allés à la, à la Mecque. Et effectivement, euh, nos, activités. Euh, jusqu'à présent. Ce que nous souhaitons et nous prions pour ça, c'est qu'en au moins, que les choses aillent mieux, que le, Tout-Puissant euh, nous préserve de ce virus-là et donc euh, qu'on puisse aller à la Mecque tranquillement com comme on le faisait d'habitude. Ce programme d'action, nos principales cibles sont d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons descendre dans les, au niveau des, des Nous sommes quand même des, associations est constituée de, de prédicateurs islamiques de, de maîtres coraniques, de Dara, etc. Nous allons commencer par nous-mêmes, comme on dit. Le président lui-même est maître coranique de Dara et il est imam. Donc nous allons dans les, Dara d'abord, euh, essayer de sensibiliser les sérignes Dara, ou les maîtres coraniques, comme, on les appelle en français, euh, sur la pandémie, sur les mesures à prendre avec l'aide du ministère de la Santé. Je ne dois pas partenariat avec le ministère de la Santé qui, sont là, qui est là représenté par deux docteurs, deux médecins et qui doivent nous accompagner justement pour gérer les aspects techniques et les informations techniques concernant donc ce, ce virus. Le président l'a dit tantôt, la, la, délégation au pèlerinage nous a beaucoup accompagnés lors de la journée de lancement. Il nous a même financièrement et matériellement. Il est clair qu'ils n'ont pas le temps de nous accompagner durant toute la tournée, mais ils nous ont donné tous leurs conseils, tous leurs conseillers et tout leur appui moral et financier pour qu'on puisse réussir effectivement cette tournée Et après la tournée, nous allons retourner chez le délégué général pèlerinage, notre frère Abdelaziz Kébé, pour lui rendre compte de tout ce qu'on a fait et des résultats qu'on a eus pendant cette tournée-là. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bu nu jiitalee sant borom bi tabaraka wa te julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam alaaji kosapo ak mbooloo mu tedd mu yiw mi nga àndal nga lim léegi tur yi ak ku ci wàccuwaay bi mu yor duma wax ni ñu ngi leen di dalal damay wax ni ñëw ngeen seen kër jàpp naa ni maay man may gan gi kër gi sa kër daara ji sa daara bu dee sa kër nag mooy seen kër bu dee sa daara mooy seen daara di nuyu ñëpp ñi fi teew ku nekk ci kàttanu wàccuwaay bi nga am di nuyu waale monsieur le ministre mi ndax inna rasula bi xatirin mursal moo tax wàccuwaay boobu ma jox la ko ak presse beeg ñii nekk ci ginnaaw te yore hôpitaux yeeg ñëpp dafa mel ni bu dul woon nag li ma tudd bi ngay ñëw ba noppi toog ci sama kanam présenté ma kon sama kàddu du jib fu ñu mus a daje ci mbooloo mu yow wala ku alaaji xalifa géey meññ su ma dajee mooy jël sama kàddu moo tax wax bi du yomb ndax fi mu waroon jaar daf koo jaarale ci man te moom mooy lépp yàlla na yàlla fay te nangu tànk yi dafa bari kun xaaliman la yonent bi saa su waxoon ci kàddu suñ borom wala nga nekk moo mutahallim wala nga nekk nan aw muhiban waaye falaat takkun xaamisa kon boobu rek doy na yéen ñëpp ay jàngalekat ngeen ñi ci mel ni man nekk ay donga yuy jàng waaye baatu ndimbal li jëm ci daara ji kon ñett yëpp da ngeen ko àndaale ak cofeel gi nga wax léegi bi ñu wàccee ci suuf xool daara ji dëkk kon ñi fi teew ñëpp dañu lamare ñeent yi mm-hmm. wala takkun xaamisa ba rek lañ la ci kenn bokkut yal na yàlla def tawféex eh, ba ci des it moo di di lim ñi ñu jàpp ni war nañoo teew ci ñoom dimbul leen asan fekke wut yëgut ñu boole ko ca mm-hmm. loolu cër yu ëpp ko mm-hmm. lu man am ba paase te doo ko yëg wala boo yëgoon te defuñu ko du wàññi dara suñ lay yëgalee ba pare boole la ca day rëy loolu tam dafa dafa feeñ ci jataay bi nii ba ca des si tamit mooy mbooloo moom demee nii te yéwee ni naka jekk nu ngi jëflante maa yow ci yoonu màkk yi ak ci daara yi waaye ñu teewal mbooloo ma ci sa kanam ndax bopp lu mu doon rek mooy mbir ma te bopp baa ngi nii kon day mel nii li ngeen am lépp ak ñi ngeen am ñëpp ak li ñu am teew na sama kanam loolu nag bu xëyee xëy tàbbi ci sa kanam di luum ba doo mën a wax waaye maa ngi lay seereel nii xaw ma ñoom bi ñu wàccee fii lu ñu yëg waaye man bi nga ma wooyee li ma yëg ko ëpp ci mbégte yàlla xam na loolu soññee gi yenn saa yi kàddu di ko def waaye effort def ko moo gën a gaaw maanaam jëf ci soññe moo gën a gaaw a wax ci soññe eh, da ngeen a jëf lu ma soññ nga xam ne fi mu ne nii bala ngeen a jóg du ma wax bu ngeen demee laay takkaat laxasaay man ndax jàppoon naa ne ma doon doxee sax dafa xawa a yemamaay waaye ñu toll nii yéen ñi kon wàcc seen kanam boole la ci donga daara yi sëñ bi kooku karawaase na la ba loo doon def ci diine mbaa nga koy def ci alxuraan mbaa nga koy def ci donga daara bu jógee fi di nga seet nooy laxa soowaat yàlla yàlla fay maa ngi leen di seereel nii lu rëy nii ci man amul yàlla xam na ko yàlla xam na ko ndax mbir day am plafond te daytalaayu mbégte mi foofu laa ne yàlla na yàlla fay bu baax a baax di gërëm ñépp ñu nga àndal di gërëm ñëpp ñi nga àndal di leen ñaanal sunu làmmiñ bu ndaw bii ku ci nekk branche bi nga ci yore di ko suivre te bëgg ci am ndam yàlla nga ci am ko kawe sa njort sababu jëf jii man na fee jële mbas mi waaw salaa salaam ci kàddu yàlla alxuraan sax nu ko wax at xamoo min juuxu moom baat la bu bu bu fes ci téere bi te dafa ànd ak waa amoon min xaw mooy masque yeeg yi mu àndal kon yëpp daa daje ci jataay bi alaas nga baal ma xam naa nag dégguma sax li may wax waaye ñoom ñu ko gën a dégg waaw kon ñaari baat yooyu rek xam ne mu ngeen dajale fii ci barab bi te defe naa ne boo jàppee saar wala ca bopp ba li ilaa fi xuray si tam dëkk baa tax muy wax kon bu dajalee li ilaa fi xuray si muy màkk gaata xam nga juuf muy muy muy reggal ak waa amoon min xawf muy faj ak sécurité bu ngeen dajee lépp andi ko laa day mel lépp mat na hmm? yàlla yàlla fay hélas nu ngi lay gërëm di jaare ci yow di gërëm monsieur le ministre de la santé bagage yi ngay gis nii yóbbu fa takku la woon seel yi moo ko fi yónnee woon te mosuñoo toog sax maa moom yàlla xam na ko day dégg rek ci man kon bu doomam teewee ñu xamal ko ni ko ñu ngi doon jot ci yëf yi depuis boobaak léegi defe naa ni madame mars daaw le 2 la commune bi duggoon ci réew mi 2 mars bu daaw ba ba fi ñu toll nga xam ne am na attaque lu topp Sénégal di dund li ni ñuy dund da boros ci sa biir wax fi mën a jële mbas mi muy ñaan mu ci ëpp doole nag ndax fi pexe yam la ñaan tàmbulee jëm kaw kon ñaana man lépp tey borom bit moo ne bu ngeen jaaxle ngeen ñaan ma dafa am benn addis bu yonent bi saa di wax ne su ngeen demee ba seen ñeent mànk ci yéen ala kuleal dina am yu ma dugal ci seen biir muy ngeen di am te du ngeen génne asaka seen njaboot yi ngeen duñu solo ba addis ba jeex ñeent yooyu muy lim danaa baril ma bi ci gën a yéeme mooy danaa bari dee ci yéen dafa naa loolu la waxoon bu ngeen ne ba jigéen ñi ñimee rafle gu ëpp danaa baril dee gi ci yéen su ngeen dul génne asaka it mandi fi ñàkk mooy inondation yi ngay gis nii wërta am parce que ndox dawul lor day defar mu ndee ban ba leen war a defee fenn ñu jële ko di ko jënde ay machine di ko manqué ay ay ndox ku doon defar bu dee ba yàq am na keneen ku ko yebal moom comme daa bari soldaar borom bi ba tax wax ne samay soldaar mu ne su leen lim wa maa yaxnab junuud rabbika waaye li ci gën a yéeme mooy su ngeen tra arrière bu ma leen jéeyee sama soldaar yi da xam du ma seen morom ndax ñoom ñooy daan wa inna jundana waaw fu soldaar bi yàlla dugg dana not corona mi kenn ci militaire yi la am na ñeneen ñu dul ñoom nag waaye kenn la ci rek te fu dugg fu ne léegi la kon nag yàlla na yàlla mi nga xam ne moo leen moom moom tënk leen te it kattanam egg na ci bu ñu ko doon mooy ba àllaaxira jot bu ko neexee mu baal borom bi mën na lool ginnaaw mën na lool nag sikk si ci noonu la ne man li ma gëm mooy su ñëpp daroon tàllal loxo fekk si leen ci kii kaamil bi ubbi ko seen baax na waaye boo gën a gaaw kon du tee ñu def prétexte yi di ko jëfandikoo waaye daara ji jóg alaa kulli haal toujours loolu laay wax di ubbi diggante ñaari feggu yi di ca wax lañ ca xam di ko wax ne ko mu rus nu te jéggal suñ borom ginnaaw kuy bokkaale na mën a baal asa ko tooñ yàlla na yàlla baal ci barke alxuraan mii nga ma jox léegi mbooloo mi yàlla ko yàlla yëkkati ku ci ne ci yéen dégg naa ko ni ma dégg ndax senegal bu na fukkee soog ñeenti daa yaatuwut fi ne boo xëyee balaa jant soo ko bëgg a xam-xam ko te ñu fi nekk ñëpp di ndonga daara koo ci xamul jëmmi boppam xam nga bàyyi mbaa maam xam li mu def ci réew mi mu wóolu ne foofa képp buñ deree bëgg ñu am ko ndax mag ñi bi vaccin xewagut ak masque amoon nañ lu ñu daan tudde baaw naan ak julli baaw naan te yii rek lañ dañ lañ ci daan dax ñu leen ciy fekk dañuy boole loola ak lii ñaan yàlla lépp jóg fi waaye en tout cas tey wax ju bari xaju fi te li nga waxoon doy na yàlla xam na loolu moo tax sama tëree wax laa ci sànni lii kese waaye dafa mel ni yow boo yëkkatee kaat doy na sama rakki bopp ji Abdallah doy na sama rakki bopp ji doy na sëkk te bu woon fii rek li ma wax du ma wax. ah wakat alaaj ñi yii ñu ngi déggante bu du yàgg bu yàgg ci cofeel mm-hmm. amoon nañ seen taalib bu nekk fii ndeysaan tawàcc liggéey Pape Cissé mm-hmm. amul bés benn yoon boo fa dem te yëguñu ko mbaa ñëw te mm-hmm. may yëg bu baax seen yóbbante wakat alaaj abbas yii ñoom tamit suñu xarit lañu yàlla na yàlla def tawfeex Cerno Abu Ja siyaar naa ko bu yàggul dem naa fa waaka sëñ Muhsin kasalika kon fii xamante na bu baax a baax baax a day mel ni eh, jë bëri yu gise la waaye la ca biir toujours ñu ngi am daje te foofu waaye nekk fu ne fa nga jàpp dafa mel ni yaa yor yaa yor bi diine ji benn rek la muy islaam képp la suñu borom reconnaître li des lépp njabootam la damay wax toujours ni tarixa yi doomi diine yi lañu ku ñàkk diine amatoo tarixa ban xasee bokk ashadu an laa ilaaha illallah bokk pèlerinage bii bokk kaamil bi nga ma jox bokk xibla bi foofu waaye taxaw man naa wut morom ma yàlla xam na loolu kon nag alay sant naa bu baax sëriñu daara yaa ngi ni toog yéen jot nañoo teew kii mooy imam bi di war a jiite léegi nii incha allah wi la fi jànge mokkale fi ba fànn yëpp alhamdulilah suñu xaari ma ngi nii mooy jiite naa fi weeru koor moo ko ay rakam moom kaamil ba ñuy dar rek 6666 aaya bis bi nañu jël 222 rek ñun waaw kay bu koor gi bu amee ñaar fukk juróom-ñaar kaamil bu mat noonu la ñu seetlee bis bu ne ñaar téeméer aaya ñaar fukk ak nangam la ñuy jël rek moom moo koy jiite na mu yelle sa wajur wu tedd wa daf cee musayam keroog dafa maa dafa maa dafa maa soññi ñoom xaw ma la xew waaye ndaw la mel ni yow ci alxuraan ku ko yëg war naa laa war naa la jàppale fekk daa fekkee loolu keroog fekk ma ne ko dama maa ngi jàpp ni benn bi dangay ngay firi ba aal jàpp la nga mm. ne alxuraan bu doon am sant day sant gay mu ne waaye moment bi jox naa la ko <laughs> ok kon nu ngi bëgg bu baax ci ñëpp di fasante kóllëre bi di ñaan yàlla suñu borom mbas mi jeex bàjj ga tàmbali ku toll naa def seconde boo ko boo tiimut waxuma ay weer waaw ëpp naa am seconde buñ ko tiimut waxuma ay weer te ginnaaw borom bi moo waxoon ni àdduna bi bu ñu amee seconde buñ julliwut mbaa buñ tawaful ma tugal adduna sëñ bi yu mii bu ñëwee ba nit ñi di ko daw man tiitoon naa lool ndax baraba ngi googu boo xam ni moog julli rasulilaay wax ni borom bi nee na suñu toogee heure bu nit ñi julliwut tawaafuñu adduna bi jeex ndax ñoo téye jamono kon bu fi waa ji jaaree ndox suñu digganteeg loolu ngay xool kaaba ga muy wiit du rasul toog kenn du ko du ko du ko tiim yow doo xam ban monde nu ne day mel li nu corona teg ñun li ñuy dund sax gën a miti corona ñàkk wër kaaba ñàkk tiim rasulaay moo miti corona moo gën a miti corona foofu yàlla na yàlla musal ci moom mii ak ñu mel ni moom waaw te defaral ndox xol yi ba bu fi jàllee comme orientation lañu ñu indil rek ñu orienté wu ci diine ji waaw yii yëpp mooy fekk sa gémmiñ rek te l'islam digaloon nañu ko avant ah euh, yenn accolade yi l'islam tere woon nañu ko dafa mel ni kon dañ ko yónni rek pour mu defaral moom affaire bi <laughs> loolu rek la alaaj barakallah barakallah ni ngi bég bu baax a baax